mi ngi noonu Vélingara yi la ñoo ngi Vélingara ñoo ngi président waroon na jël kàddu waaye daa la jeunesse de Vélingara en transe xale yaa ngi noonu gëmewuñu président Ousmane Sonko micro bi nañ déglu nañ déglu nañ déglu eh eh eh wàccal moto bi ma eh eh wàccal moto bi Thank you. mi ngi noonu ñoo ngi Vélingara ñoo ngi Vélingara malgré dóor lacrymogène yi malgré blocus bi comme ni jant bi di fenke noonu la président Ousmane Sonko feeñee tey nga xamante ni moo di Vélingara ñoo ngi nii Vélingara jeunesse bi taxaw ak président Ousmane Sonko mu war leen wax ñaari kàddu balaa ñu Nous sommes à Vélingara. Vélingara. So Vélingara, comme on le dit en Peul. Vélingara accueille triomphalement le président Ousmane Sonko. ñoo ngi nii président bi ñu defee caravane bi président war a wax ñaari kàddu rapidement avant ñuy jàll guddi guddi Tamba guddi ñoo ngi ñëw Tambacounda président <laughs> Ibu, Ibu, eh Ibu, Ibu, Ibu, Ibu. Ibu, Ibu, eh Ibu, eh Ibu, eh Ibu. Ibou eh Ibou Ibou Ibou Ibou eh Ibou Ibou Ibou xoolal eh. ñu dem ñu dem bravo. mi ngi noonu président nee nañ nañu président nee nañu dem micro am problème. Oh, oh. nañ dem nañ dem nañ dem nañ dem nañ dem nañ dem nañ dem nañ dem nañ dem nañ dem nañ dem grand grand grand nañ dem grand nañ dem oh oh oh. oh oh oh grand jàppale leen ñu dem jàppale leen ñu dem xoolal eh xool Hey, hey, hey! waaye bi day dem waaw eh bi mi ngi noonu mi ngi noonu ñoo ngi ñoo ngi Vélingara président bëggoon na waxtaan ak jeunesse problème micro la am

eh eh eh dégg ngeen ko. sila nga ñëw sila nga ñëw toog fii nga ñëw jëm fii. baaxul baaxul baaxul. ndox baa ngi nii. waaye na ñëw ci oto bi na ñëw ci oto bi. ah mu ñëw bi ah. micro. moom mënul wax micro bi baaxul. oto bi day yëg fii demal. waaw loolu. may leen ko may leen ko may leen ko may leen ko may leen ko may leen ko may leen ko may leen ko. may leen ko may ku leen oto may leen ko. pousse leen No, no, no. No, no, no. Oh, asalaamaaleykum bi nañ ñu sànni grenade téye sama sécurité téye sama oto ma déglu déglu bi